góor yàlla ak sëriñ daa bokkul ba tey Cheikh yaa ji góor yàlla ak sëriñ daa bokkul ba tey Cheikh Béthio yaa ji góor yàlla jëlal sëriñ Saliou sëriñ Cheikh Béthio mooy Bamba ay moonu moom di sunu borom mooy yàlla jëlal di saa ni ñu xaade di ñu ujjooru war ma Saliou every day you were just doing it di Saliou ah mooy Bamba moom moom bi suñu borom mooy yàlla bisani ka fani yal baati ma maata salmada wa bi baha iya isuru amada mooy baba jëlal ay moonu moom bi suñu borom mooy yàlla jëlal bisani labale fa tax dafa sakaw fa sa nekk kanam ku ne sunu ginnaaw mo te xala des yaa

bëgg bëgg ci bis bi jëfal yow ci bis bi dalaa ren bi jaamu Cheikh Sall yaa nu moom may nu gërëm jox ñu dërëm ñun yaa nu moom jërël bi ay stop